waaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur ñu sant Baye Omar Mbacke mu yàgg loolu te wér ndax dafa def lu jafe yore ay tuut tànk jubbanti leen jubal leen waaw ñuy ñaan mu yàgg te te bisam bi moo xam lim ci bëgg yàlla na ci am lu kawe njortam lim bëgg ci liggéeyu maamam tamit yàlla na ko mot yàlla mottali ci barke yonent bi waaw. man nag taalibi sëñ Abdou Karim Mbacke moom Serigne Fallou laa waaye Baye Omar Mbacke day sama soppe moo tax. ndax dañ ne ragal tiita day xañ a wërsëg ki ma booleeg yéen it di sama taaw muy Pape Ndiaye waaw may ñaan yàlla lafal ko cat ak saytaan lafal ko mboolee mu jullit ci barke Cheikh Ibra waaw wàññu nag bàyyi ma nee na lépp doy waaw ndax nee na comme Serigne Touba maama moo daan bernde moom tamit day bernde na lépp doy bu kenn lekk gerte caaf na lekk ñëpp lekk ba suur naan ba màndi waaw te fas yéene nañ ko koo defal ci barke maamam waaw. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare man nag su may présenté wu sama tur Cheikh saar la ma nekk am ndongo ci biir diwaan bi muy diwaanu xidmatul xadim di bamb mos xam ñu leen siyaar nag bu baax euh, ci bis bi nga xamante ni ren mooy juróom-ñeenteelu at bi ñu koy def di sant Cheikhul Xadim di delloo njukkal Serigne Saliou ren nag. yemook tey jii nga xamante ni ku xool bis bi xam ni lépp Serigne Saliou moo ko defaral boppam ndax ñun ay ndaw lañ rek ànd ak Seydina Omar Mbacke di liggéeyal ku tedd ki muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon bu ñu wootee fii nga xam ne at mu jot ñu ko wootee daanaka waa koñ bi ñëpp dañuy génn wuy sinu àndandoo ñun ci liggéey bi donte ay ndaw lan ay tuut tànk lan waaye sëriñ bi xiirtal nañu ci ñuy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax amaana mënoon nañoo nekk ci leneen waaye nag buñ nekkee ci lii grâce à Seydina Omar Mbacke Al Farouk ñu koy sant di leen seedeel ni moom day bu Serigne Touba wàccaandoon jamono du defaraat toogaayam ndax lépp lu sëriñ bi digle mu ngi ci te kenn gisu ko ci ay tere bi moo ñu nàmpatal ci lii ñu nekk moo ñu ci xiirtal ñuy sant di gërëm mbooleem koo xamante ni it teew nga ci bis bi tàbbal nga ci sa ñaq yit ndax cant gi nekkatul loo xamante ni cantu daayira la wala cantu fédération. cant mën nañ ni àdduna bi yëpp la ndax fenn fu ne nit dina fa jóge ñëw rien que pour bokk ci cant gi tàbbal ci ñaxam def ci dooleem kon nag jaadu na tamit bu lu mel ni teewee ñu gërëm ci ñëpp sant ci ñëpp ndax day liggéeyu si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul. solos bés bi moom berndeel teg kott la wala. bernde moo ci gën a tuuti waaw ndax bu nu xëyee ñaari bis lay nekk démb moo nekkoon guddi séebre bi. tey mooy bisub Serigne Saliou bi bu ñu xëyee mën a yaa ngi nii bu ñu xëyee dañuy xëy toppatoo gars yi ñu ndékk bu ñu ndékkee ba pare dañuy dem ci baas ba wàcce fa ay kaamil dañuy yendoo durus xasida ba ngoon bu ñu xewloo ba pare 16h Baye Fall yeeg Yaay Fall yi ñëpp génn ñu rëkk xiini kennal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax ñun marche ñu parce que dañoo am naqar dañuy marche parce que dañoo bëgg 16 dañuy génn wër mbedd géejawaay yëpp. sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul delloo njukkal Serigne Saliou kennal Cheikh Ahmadou Bamba ànd ak Seydina Omar ak képp koo xamante ni nii mbàkke mbàkke nga te doon wëllërëb Serigne bi da ngay ñëw àndandoog ñun ci marché bi ñu kennal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bu guddigee jàngkat yi dina ñëw ñoom it feeñal seen yéene ci bis bi ndax bis bi moom daanaka ñaari fan yëpp ay activité la ba semaine bi di jeex lépp rek ci sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. mooy soñ ci ndongo yi. xanaa di soñaat sama bopp di leen soññaat ci ñu gën a xam ni li ñu nekk du lu yomb ndax nekk ay ndaw taxawal bés bu mel nii yombul te daanaka buñ la nee ñii ñoo koy taxawal amaana mën nga ci am xel ñaar boo gëmut ni lépp lu am sëriñ bi moo koy defal boppam kon di soññaat sama bopp di soññaat ñëpp ñu dolleewaat góorgóorlu te xam ni bés bi nekkatul lu tuuti ndax loo xamante ni yaa ngi koy def juróom-ñeenti at at mu jot suñ borom di gën a yokku mbir yi di ko gën a taw féexeel kon day jaadu ñu nit ñi nga xamante ne ñoo ci biir ñu gën a dooleewaat góorgóorlu gën a saxaat ci liggéeyal sëriñ bi ndax leneen loo fi def lu dul liggéeyal sëriñ Touba perte nga liggéeyal sëriñ Touba képp nga mën a def ci àdduna bi mu jariñ la fii jariñ la fañ jëm te sëriñ Touba kenn du ko liggéeyal mukk di am gàcce kon li ñuy soññaat suñu bopp rek mooy ñun ñëpp ñu gën a góorgóorluwaat. TV ñu ñu leen di di te di jox seen wàccuwaay ci bis bi ci tawaay bi ngeen teew ci bisu sëñ Omar bi ci sant Serigne Saliou ay wax dëgg yàlla am nañ mbégte ci yéen lool ci bis bi ndax bis bi moom du gën a nit amul lu dul bisam bu ngeen ñëwee teew si nag wax dëgg yàlla dañu am santa ak ci yéen wax dëgg yàlla bis bi moom wax dëgg yàlla dafa ala daw be noonu lañ ko mën a waxee ndax bis bi ban ko tàmbalee yàgg na bañ koy tàmbalee li ko tàmbalee woon ay wax dëgg ay mat leen ak ay laax bu ñu demee tey ba fi tëral ay ñeenti naka ki juróom wax dëgg yàlla dañuy sant bu baax a baax nga xam ne yoonu sëriñ bi am na tànk kanam waaye amul tànk ginnaaw bis bi nag wax dëgg yàlla sëñ Omar dama dénk problème organisation bi yëpp li nga xam ne mooy biir baas bi di ko dale ci wàllu baas seize animation éclairage lépp sëñ bi man la ko jox depuis bi ma ko joxee ba léegi wax dëgg yàlla duma ma jóge fii di dem ci moom naan ko sëñ bi lenn lu dul bëgg am mbégte ci baas bi moo tax duma xësee dugg ci baas bi ci trois jours yi des ci cant gi yëpp dootuma am fenn jëmukaay lu dul ci biir baas bi ba bis bi di weesu li ma cee sàkku nag mooy mu am mbégte ci bis bi ñi fiy ñëw bég gan ñi bég mboolem jullit yi bég ndax wax dëgg yàlla sant Serigne Touba dafa yomb bu ñu amee fii nag dañ koy sant bu baax moom Seydina Omar di santaat bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax. man nag Saliou Diop jóoblaa tudd ñu may wax Saala maa ngi dugg. Kaaraange. waaw Kaaraange gi ni wax dëgg yàlla moom doy na mat na sëkk sëkk ndaxit it lépp loo xam ne waajal bis bi laaj na ko waajal nan ko bu baax a baax ci wàll sécurité ci wàllu organisation daal lépp loo xamante ni bis bi laaj na ko waajal nan ko bu baax a baax a baax ci lépp nag ci bépp fànn nag waajal nan ko bu baax a baax waaw waaw man nag man Saliou Diop laa tudd ñu may wax Saala. boo demee Petersen bi may wax borom daaru man maa yor groupement chauffeur yu xale yu ndaw yi Petersen ñu topp sama ginnaaw bu ci kanamee tuuti ay waxtu guddi dinañ fi teew ñoom ñëpp ñoom ñëpp dinañ fi teew wax dëgg yàlla taximaan bee di ma joxoñ ne wax dëgg yàlla sama xarit la ñoo bokk dëkk ma moom waaw ñoo ñoo bokk dëkk wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla chauffeur yu Petersen yi aw ma seen fay waa koñ bet aw ma seen fay la ko dara ci imaamu ji ba ci chef de quartier yi ak délégué de quartier yi ñëpp ñu ngi leen di sant ak responsable politique yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan yàlla ñu fekk ay déwéni déwén ngeen yàgg fee teew bis bi dem ba àgg wax dëgg yàlla jéggi day ñu koy def stade Amadou Barry ngeen yor ay maanaam seen liggéey bi yokk ba ngeen ñu fay fekk ak seen matériel bu baax a baax ñu ngi leen sant di leen gërëm